dëgg ko gën te xam nga lu tax mantu dëgg mooy mujj situation boo mënti gis mu am da ngay toog ba au dernier moment yëfi feeñ. fii lu tax ngay dégg ñu naan kaa nit ñi xewal kaa léegi di ko wax parce que la nëbbu woon mooy génn. Mhm. li nëbbu woon foog dafay génn dañ koy leeral ci kaw suuf xale yi duñ ci lenn xale bi juddu du ci dara te fi mu nekk litige ak coow ak wax mi ngi ko topp ci àddinaam ba. mën na yàq àddunaam mhm. mën na fu mu dugg ñu ni yaay ji xam nga ba njëkk nit bu daan dem di sëyi da ngay gis ñu koy xaxar te xaxar yañ ko daan xaxar day nekk dëgg waaw jikkoom naan wax que dañuy wax jikkoom dinañ wax jikko yaayam dinañ wax jikko papaam tantaam ay mbokkam ya ñu defoon ca dëkk ba bala ñoo sëy si dinañ la wax liñ lay xaxar la lépp dëgg la bu ñu yeewoon nag ci penc ma ñëpp di ko waxtaane ay moom lañ ko wax di ay moom la mhm. mu def di ay nàngam moo tax ngay dégg xale naan noppam ak boroom mhm. ndax lu fi waaye def nit ñi xam nañ ko mhm. da ngay gis nit nekk ci biir kër di sëy nekk ak sa rakku jëkkër ci biir kër gi jur doom sa rakku jëkkër jur ko nit ñi xam ko am na am na nit ñi xam ko li tax nit ñi di ko xam mooy biir kër dafa xat am na yoo yu sew-sew yoo xamante ne jaga tey bu ma seqoon ak yow dara bu ñu yàggee toog rek nit ñi xam ne ñaar ñi am na lu nekk seen diggante ndax complicité ba cay hmm. am hmm. ba cay am ndax am na boo àggeek nit fenn rek boo àggeeg nit fenn rek ak wax yi foog mu foog am yu yu échappé mu feeñ bu ko defee nit ñi dañ koy xam nduróo gi day ñëw waaw li tax waaja wax naa la ko léegi li tax waaja wàññeeku di nangu doom ji nduróo bi day ñëw day ñëw day ñëw da ngay gis xale bu jigéen bu nekk ci koñ boo xamante ne bonul ni ma ko mën a waxee nekkul di mbaraan di di jaay boppam di def yeneen waaye amul xel mhm. ku mu bëgganteel benn nit boobu lay bëgganteel dalay jox boppam ba mu jeex soo ko ëmbalee bañ dafay am waaw ci koñ nga gis xale bu jigéen bi heure bu ëmbee rek ko ëmbal dafay bañ ah, ndax ay mbokkam dañuy xool xale bu jigéen gi xam ne néew gi doole la benn ñu mel ni man bëgg alal mhm. xam ne xale bi néew gi doole la day rafet lool day rafet mhm. jongo ma baax walaay am na ba tàyyi ñu ni kii néew gi doole la doo ci dugg soo ci duggee takk ko wala nga nangu doom bi duma am ku ma teral sama hmm. genre gi nga xam ne loolu la ñuy wër ci àddina du ma teral xale bi génn ci loolu dem ak doomam du am bàyyi hmm. nga téye sa doom nga jekki bëgganteewaat ak keneen jox ko sa xol mu ëmbalaat lu ñu defaat la même chose dafa am ñu am malchance ci àdduna hmm. bu ko defee doom yi di accumuler wu te bokkuñu papa ñu sax am papa à la parce que nanguwuñu ñu ñu tuumaal la ni dafa bon fekk yow yaa gën ka nga xamante ne ñoo ngi ko muur di ko marié. dëgg la walaay dëgg la fekk kooku toj ñam réew. waaw lijjanti lañ koy takkee sax ak la muy sañ seew ak la muy def sax da koo maraan. jëkkëram joxu ko ko. lan da koo maraan dajal ko ba mu daj. ak bari soog dugg ci sëy bi amaan na. am na ñoo xam ne seen mariage bu ñu koy waaj. dañuy mbaraan mottali seen waaw dajale di li ñu am. man koo xam ne bi ñu ñëwee ginnaaw suba la maraan na ab faram. pour mot li ñëw. waa baax na xale bay ëmb yaa ngi dëggal li ñuy wax waaw fit lañu am dañu am fit xale bi dañuy wax sax ni xale yi nga xamante ne ñooy ëmb léegi ñoo nekk ñu naan dite ndax ñi wala ñu tay ko waaw ñi nekk naan di tey du ñu ëmb wala ñu tay ko wala bu ñu ëmbee dinañu xam ne faal bu ñu bëggee am dara ci faal waaw dañuy provoqué ëmb gi dañ koy provoqué jur ak faal doom soit takk la soit intérêt bi ñoo koy ëmbal <laughs> ñii bàyyi yàlla yow mii la ñuy yàlla yow mii yaa yaa toog ci kaw nit ñi mm-hmm. jéggal leen ma billaahi te gis nga li ñu wax mm-hmm. dëgg gi faaw ñu wax ko ca ba muy teel <laughs> gis nga dëgg bi bu génnul ci bi muy teel mm-hmm. yàgg yàgg fa muy mujje du neex. dañ ko génne te wax ko. du neex waxal dëgg gi gis nga ki ko takk nag mën naa nekk nit ku baax mu toog ak moom wax ko dëgg gi nag ni ko dama nekkoon xale damaa ragal ragal naa samay waajur benn ragal naa gàcce ni ëmb naa ci koñ bi te amul bàyyi ma def na ko su dul noonu def naa nga ma kooku mën na koo couvrir. dëgg dëgg la bu baaxee. bu baaxee mën na ko téye ndax dëgg gi mu ko wax waaye bu toogee ba mu éclater boppam foofu amatuñu lu ñuy couvrir àddunaam day jaxasoo dëgg damay wax ni li wees ci dundi doomu aadama yi kenn kenn kenn du ci basé wu mhm. ci mu nekk tey ngay basé wu mhm. boo baaxee te ko fekkee te na ko fekkee xanaa xamoo ni am na koo xam ni mantu a ci njël ko allo allo baal ñu tuuti nga bougé ndax réseau bi dem na 88 628 89 90 bés nga ne mantu am na koo xam ni Eh, bu ñu doon nettali démbam. Mm-hmm. ak ni nga ko gisee tey bu ñu doon nettali démbam doo ko gëm ndax jikko ji mu yor tey. dëgg la dëgg la. am na koo xam ne bu ñu doon nettali démbam. Mm-hmm. te xamoo ko démb bu ñu ko dee wax tey jaral na la nga xeex ni melul noonu. dëgg la ndax jikko ji mu yor tey. dëgg la mantu am na jigéen. allo. waaw. salaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay nuyu yaa ngi direct. ah sëñ bi ñoo ñoo ngi jaar ba. ci jàmm. na tey. ñu ngi sant alhamdulilah. ñoo ngi ziar bu baax di am kontaan trop ci émission bi. ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah. allo. baal ñu nga wàññi télévision bi ndax ñu déggante. Euh, déggante wuñu nag MD. dañoo déggante wul 88 628 89 90 soo leen nee allo rek wàññi leen télévision bi sinon lu ñu déggante faal nga ni. man to xanaa xamoo ne am na jigéen goo xam ne yàlla nattu na mu ëmb ba am ci doom te kenn gënu ko xëy na erreur la erreur mhm. xëy na dañ koo nax wala mu toppoon bis boobu doon sàcc far feeñ mhm. mu am ca doom na xool fa la doxee xam àdduna téye boppam am fulla am fulla téye boppam am mm. allo oui allo dañuy buuxante daal ñoom ñaar. waaw waaw réseau bi la. Euh, euh, euh, dama yaakaar dañuy buuxante. mantu mantu am na jigéen boo xam ne koroog ba mu ëmbee la defar boppam. Mm-hmm. xëy na dañ ko xëy na nangu nañu ëmb gi xëy na nanguwuñu ëmb gi mu téye doomam nag. Mm-hmm. tey ba doomam jooju kenn sañ ta wax ni ko doomu ëmb nga ndax ni mu téye famille bi. Mm-hmm. bari na koo xam ni yaay ma ko defar. ci erreur ba ko daloon. mu defar doomam ba doomam tey jii ku tudd famille bi tuddaale ko. aka bari ci réew mi. bari na am na koo xam ne jigéen boo xam ne tey moo ngi toog ci plaatu sëyam. Mm-hmm. erreur ba mu daloon ci jeunesse am moo tax euh, moo ko def tey jigéen. Mm-hmm. ba kenn xel xalaatul sax wax ni ko sa euh, amoon nga erreur ci ci sa jeunesse. Mm-hmm. ñu jël ko. am am na ko góor koo xam ne. allo salaamaaleykum aleykum salaam. ngi sant alhamdulilah. ñu ngi leen fay bu baax. allo. allo oui. waaw dama bëggoon ci seen euh, thème bi tey. ayca. waaw dama bëggoon rek xale bu jigéen bi euh, euh, je sais que def na erreur. Mm-hmm. mais aussi que ñu bañ a porter ko jugement parce que comme lu mu wax rek dafa tiitoon. xëj na moo waral situation bi mais je pense que góor gi nga xam ne moom moo ko enceinte woon ba pare ba. Mm-hmm. je pense que moom mooy cause situation bi yëpp. Mm-hmm. donc le fait que mu ñëwaat bëgg jëlaat doomam. Mm-hmm. doomam la c'est vrai mënuñu ko ko xañ bu fekkee nekk moom la. Mm-hmm. mais en tout cas euh, c'est mu ñëw daal di def bordel ci viwu jàmbur. parce que bi mu méttee nekk fi woon ba keneen ñëw yaral ko moom ba mu toll ci âge bi. nga ñëw tey par jalousie wala par je ne sais pas ban raison nga ñëw chambouler viwu jàmbur complètement donc moom moo causé tort fii bi plutôt. mais aussi euh, xale bu jigéen bi pour mu wax ak ki nga xam ne moom la jiiñ doom ji ba dina ko baalu ak mais aussi bu defoon test il faut mu peut-être que mu def test ADN bu dee kooku gëmu ko pour wan ko ne que jurul xale bi parce que nga gëm loo nit nekk que euh, yow yaa jur sama doom ba mu am cinq ans après nga ñëw ne ko juratoo ko il faut nga andi ay ay ay euh, comment ay raisons yu valable. C'est donc bu dee kooku gëm na ko tant ci parole bu ko gëmul tamit il faut mu dem def prouver en tout cas lu wane ne que euh, ki mu ko jiiñoon kooku du papa ji pour ko kooku euh, nekk doot du per biologique am mais en tout cas euh, kooku tamit souffrance bu metti dina ko dal ci le fait que mu fogoon ne am na bant te jur fe tey ñu wax ko nekk juruloo kooku la loolu mooy mais xale bu jigéen bi moom il faut mu xam ne que lii vérité diggante dëgg bi moom il faut mu wax ko parce que mhm. fen bu nekk dafay am conséquence. Mhm. te conséquence su fen moom mënul nekk lu neex malheureusement pour moom vie chamboulée mais ce ne sera que le fruit de li li xew donc euh, vie am dina chamboulé peut-être jëkkëram daal moom la ñu mën a ñaan moom mu xool kan moo ko mën a ñaanal pour que jëkkëram mën a comprendre situation parce que dafa dafa y a eu beaucoup de chamboulement li li li xew ci situation bi c'est pour jëkkëram. parce que jëkkëram rek moo moo nekk innocent moom ak ki ñu jiñ xale bi dans cette situation là. Mhm. donc euh, jëkkëram daal ñu ñaan ko indulgence. Euh, par rapport ak situation bi pour bu mën na téyewaat continuer nekk ak jabaram mu nekk ak moom mais euh, xale bu jigéen bi il faut mu xam ne que yenn fen yu rëy yi mënul bañ a am conséquence. ñu mhm. baal ma ci kàddu gi. dëgg loolu rek laa doon kii mais en tout cas ñu bañ ko porter trop jugement. te mu jéggalu jëkkëram. surtout jéggalu aussi ki nga xam ne moom la jiñ xale bi. dëgg la euh, jaajëf situation.